أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي عندك ينتي تيربي كتاب التوحيد mu jeexal buntu di dugg buntu bu bees buntab ñaar fukkeel ak juróom ñaar mooy baabu ma jaa fi tatayuri buntu bi mu ngi jàngale mbirum gaaf xam ngeen ne gaaf ak gaafal tey lu yàq ci sunu dëkk bi loolu bokk na ci li ko yàq da ngay gis borom kër gu gaafal jabaram wala jabar ju jaafa gu gaafal borom këram wala kilifa gu gaafal njabootam doom ak ku mu mën a doon ay mbokkam ak di gaafal kër gaafal waruwaay gaafal gaafal gaafal yenn saa yi sax ba nit gaafal place bi muy liggéeyee bu muy jaayee wala bu muy xëy te mbirum gaaf lu lislaam dàq la bu yàgg ay aaya la ci borom bi tabaraka wa taala wàcce ci quraan waaye li tax ba tey jullit ñi mënuñu cee set ndax quraan la ñu yitte woowul maadaama comme Qur'an lañ yitte woowul nag mbir yooyu du mun a set ci suñu société li ñuy gaafal dafa bëri trop te jullit feek mi ngi dese jikko ceddo yooyu rek amagul diine ndax foog nga raxasu ba set wicc ci yépp melokaan yoo xam ne dafa wuuteeg tawxiid lépp loo xam ne yonent bi daf ko dàq foog nga raxasu ci ba set munoo nekk jullit ba pare dese yenn pas-pasu ceddo yi comme ay gaaf ak yeneen yi demee moom buntab tey bii ci lu mel noonu la ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jàngal ak borom bi tabaraka wa taala pour ñu mën koo sori xam lan lañ war a fas sunu diine lan lañ ci war a mën a jëfee moo tax mu ne li ñëw ci bunt bi min an nahyi anhu ci tere loolu di gaaf wal waid fiihi ak duma yiñ ci dige maanaam terewuñu rek gaaf terewuñ ko rek sax yem ci waaye borom bi dafa wax ne ku ko def ëllëg dees na la duma dees na la duma kon ab jullit na mooy tëndiku lépp loo xam ne borom bi da cee tege ay duma mu ne cosaanam nag moom gaaflu atatayru bis sawaaniix wal bawaariix bis sawaariix wal bawaariix léeg-léeg nit xëy mbir dikkal ko mu xool lu ko gën a jege rek wala lu ko gën a yomb lu nekk ndeyjooram ak wala càmmam rek mu daal di koy gaafal man kat mbir mi ba ma ba ma dikkalee xam naa la nekkoon ci sama ndeyjoor moo tax mu yàqu wala la nekkoon ci sama càmmoñ wala nam ma dikkee ndeyjoor la ma dikkee wala càmmoñ la ma dikkee wala ba ma xëyee dajeg diw wala am na ci doomu aadama yoo xam ne bu ñu xëyee dañu taxaw seen buntu kër suñu gisee góor génn ah waaw am ñoo xam bu ñu gisee góor dañuy génn bu ñu gisee jigéen génn am na ñoo xam nag bu ñu xëyee bu ñu gisee góor dañuy taxaw bu góor dem bu ñu gisee jigéen comme ñoom jigéen lañ ñu gisee jigéen ñu génn xoolal kër gi li mu fi bàyyi ci ay góor bu fekkee ki koy def jigéen la ana borom këram bi mu fanaandool da ngay gis ne ba léegi ñun jikko ceddo yi dafa des ci ñun moo tax Sénégal mun na noo set ba léegi am na pas-pas yoo xam ne jullit du ko fas te dafa nekk ci ñun te bii ci la bokk mooy gaaflu mu ne wa kaana zalika yasudduhum an maqasidihim gaaflu day baare nit ci mu am jubluwaay bu baax man de ba ma ba ma génnee kii ma dajeel tey yenn saa yi mu ne borom benn loxo bi yenn saa yi mu ne borom benn bët bi yenn saa yi mu ne borom benn tànk bi wala mu ne kii di nangam ba ma dajee woon ak moom laa xam ne tey damay umu wala ba ma dajee weeg diw sàngam loolu day baare nit ci jubluwaay bu baax moo tax jullit war a set ci loolu mu ne looloo tax mbokk yi fa nafaahu charu wa abtalahu charia daa di koy dàq ba mu set daa di koy neenal ne loolu amul xoolal ndaw si nga xam ne waa ji da koo takk rek ñu dàq ko fu muy liggéeyee waa ji da koo takk ñu dàq ko fu muy liggéeyee mbokki ndaw si lu ñuy wax mbokki waa ji lu ñuy wax yow kii nga takk baaxul léegi sax loolu lan la jural nit ñi mooy bala ngay takk jabar nga dem di seetlu waaw dem ne man ci benn waay mu ne dalay seetal ci nga jox ko turu ndaw si ndeyam ak baayam mu ne dalay fanaanoo demal après nga ñëw dinaa la wax yenn saa yi bu dee ku ñeme yàlla koo xam ne alalu àdduna ak seytaane la àndal mu ne la yii kii baaxul bul ci dugg wala mu ne la na baax na léegi bu fekkee ne ñun lu ñu soxla ci nit ñi la ñuy dem ana yàlla lu ñuy doyete yàlla est-ce que listixaar noonu la ko yonent bi jàngale est-ce que yonent bi dafa leen la boo buggee def dara boo buggee liggéey wala ngay takk jabar wala ngay jënd oto wala ngay jënd fas woo war est-ce que yonent bi dafa ne na nga dem ci kenn mu seetal la nan la la yonent bi jàngale da nga def istixaar mooy yow da ngay tànnulu yàlla istixaar nag doo dem ci nit di ko fay mu naan da nga fiy bàyyi juróom-ñaari juróom-ñaar ma fanaanoo la su ma xëyee wax la moom mi fanaanoo nit mbiri nit ñi di ko di xam te moo fanaanoo mbiram bu ko kenn fay na fanaanoo boppam kay moom alal ju bëri waaye nit ñi maadaama dañoo bàyyi yàlla loolu moo tax xel yi lëndëm bët yi fatt nopp yi tëx dootuñu dégg lu dul mbir yu mel nii ay mbiru ceddo daanaka tey ku fer ijji rek daal di nekk benn sëriñu tariyaax commencé gisaane commencé pettaaw commencé seet commencé commencé commencé dal noonu yàlla jubal loolu mbokk yi sharia daf ko dindi ci sunu diine bokk ci fa nafaahu shar'u wa abtalahu wa axbara annahu la taasira lahu fi jalbi nafci aw dar aw dafci dar sunu diine nee nanu sunu diine xabaar nanu ne gaaflu amul benn jeexital bu muy def di indi njëriñ wala muy dàq lor waaw wala ngay jënd oto bi demal nga seetlu ko ba pare nga gis waa ji dem jël marque oto bi jël numéro bi dem ci benn waay ne ko dama bëgg a jënd oto xoolal ma oto bi te lépp lu jullit di def rek yonent bi am na lu mu lay jàngal listixaar yonent bi jàngal na ko boo takkee ndaw si ba pare bu sa listixaar nangoo ba nga denc ndaw si yonent bi nee na balaa ngeen di sëy jàppal ci bopp bi ah nga ñaan ñaan bi nga xam ne daf lay génneel bu fekkoon ne am na musiba yu nekk ci moom daf koy génne soo ñaanee ñaan bi pare moom tamit mu jàpp sa bopp ñaan ñaan bi ñaan boobu ngay ñaan booy jënd fas ñaan boobu ngay ñaan booy jënd oto ñaan boobu ngay ñaan booy jënd kër yonent bi lépp la nu jàngal maanaam ñun nag ci ñàkk gëstu suñu diine looloo tax palaasu ñaan yëpp bidaa lañ fay def ak bokkaale ak ak gaaflu ki génn suba buntu këram jël ndox di ko sotti da ñàkk a jàng ñaan moo tax mu sotti ci buntu kër gi ndox bu xamoon ñaan bi yonent bi joxe du ci sotti ndox waaye ñàkk a maîtriser ñaan yi yonent bi jàngale boole nañ ñu ak benn waay añ ñun ñëpp ñu nekk ay gan ñu teg bool bi rek moom mu daal di jël ndox ni ko curux curux curux curux curux ci ceeb bi ba am ñu jóg ñi gisul woon ñoom daal di lekk mais ñeneen ñi nga xam ne gis nañ waa ji di sotti ndox bi ñu paree ñu commencé waa ji dem ñu commencé di discuter ci ci añ bi ñu ne waaw lu tax waa ji sotti ci ndox ñu ne ñu ne dafa bëgg jàmm jàmm jàmm lay ñaan ci añ bi est ce que yonent bi dafa ne bu ngeen di añ na ngeen ci sotti ndox bu ngeen di reer na ngeen ci sotti ndox bu ngeen di nekk sotti leen ci ndox yonent bi dafa ne booy lekk nga wax lan bismillah allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar yonent bi ñaan la jàngale booy génn sa sa bunt kër mu ne la bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah maanaam lépp looy def rek yonent bi jàngal na la ñaan booy def léegi nag ñun ñàkk a maîtriser ñaan yi loolu moo ñu dugal ci ñuy def lu ñu ñeneen wax julli gi ñu doon def léegi léegi da ngay gis bu ñu jullee ba pare yenn saa yi ku jékki-jékki rek daan ne nii fi mu fi mu toog jaar ci sijaada bi daan ne nii def ay affaire jaxase jaxase yenn saa yi bu dee ni ñaari loxoom yi fi mu toog wëree la ko ba ci ginnaawam ah yenn saa yi nga gis ku ne fóon teg bakkan bi ci sijaada bi teg ci ci kii di fóon nii loolu lan la ci lan la bokk loolu bokk ci diine kenn du wax ne gis naa téere yonent bi ne bu ngeen jullee ba pare na ngeen jaxase sijaada ji ngeen doon jullee nii ay bind kenn amul fu ñu ko bind ci téere yu njàng ci réew mi amul ci laxdari amul ci asmaawi amul ci risaala amul ci muqaddima amul ci xalil amul fenn waaye réew mi bidaa lañ gëm ak shirk bokkaale ak ay aada ak ay gaafal moo tax mu ne gaafal googu amul benn relation amul benn jeexintal bu muy jeexintal di indil nit njëriñ wala mu lay dàqal lor yaa ko gëm rek waaw kenn du jaale guddi kenn du seeti ku feebar guddi fi mu nekk boo seeti woon ku feebar guddi mu dee ñu ne yow la moom la moo ko tey xam na ne guddi kenn du seeti ku feebar mu ñëw dama ne loolu diine la kenn du socc guddi benn waaye mos na ma gis may socc guddi rek mu ne ma sa sa yaay mi ngi dund ma ne waaw mu ne ma dindi socc bi ma ne ko lu tax mu ne borom yaay ku am yaay du socc guddi ma ne ko kon de dina dee boobaag léegi xanaa mën na fukki at ma ne ku socc guddi sa yaay day dee xoolal loolu ku jàll ji ku seeti ku feebar guddi day dee ah kenn xamul ay aada yoo xam ne ay bidaa yoo xam ne ci réew mi te nag nit ñaa ngi ci jàkka yi di julli koo wax mu ne man julli laa te yaa ngi ay bidaa ay bokkaale yu dul jeex te li garaaw mooy soo koy wax ah nga gis koo xam ne dina ah ñi dañuy wax rek ñun de ci la ñuy dee ndax fii lañ ko fekk waaw fii lañ ko fekk mais dafa baaxul moo tax ñu war ko bàyyi parce que yonent bi yàllaa ko yónni pour mu ñëw lépp lu baaxul ñu bàyyi ko gis ngeen l'islam bi mu duggee Égypte Omar ibn As nekk gouverneur u Égypte waa Égypte dañoo amoon benn aada dafa am benn dex bu tudd Niil dex gi pour mu génn tasaaroo ci dëkk bi ba baykat yi mën a bay ci àll bi ba baykat yi mën a bay foog ñu neexal Niil benn xale bu jigéen dañuy xool xale bu jigéen boo xam ne sëyagul taaru lool ñu jël alal ju bari jox ko ndeyam ak baayam mu jox leen ko ñu solal ko ni ñuy solale seet toilette ko defar ko ba mu rafet dugal ko ci gaal yóbbu ko ba ci digg dex gi daal di koy suuxal daal dem seen yoon su ko defee bu ñu toogee rek ay fan rek dex gi daal di génn tasaaroo génn ba ci su daal di tooyal suuf si nit ñi daal di ñëw daal di ji bi islam duggee Égypte jamono bi xaw a jege si nit ñi daal di ñëw ci Omar ci Omar ibn As ne ko ah ñun kat dëgg-dëgg tuum nañ waaye nag dañoo am benn aada dëkk bii suñ ko deful dañuy dee de ndax dunu dund mu ne leen loolu lan la ñu xamal ko xabaar bi mu ne ah loolu de mënuma cee wax dara xaaral ma bind amirul muminin medinatu munawar xaaral ma bind këyit lettre bu dem ci omar ibn alxataab ma wax ko xabaar bi daal di bind lettre lettre bi jëm ci omar egg omar ubbi lettre bi jàng ko gis lu ko gouverneur am wax omar ibn as omar këyit gi la wëlbati daal di tont daal ne omar ibn as sama lettre bi bu ñëwee na nga koy yóbbu ba fi ngeen doon dugal xale yu jigéen yi nga dugal ko foofu nga génn ci lan la omar bind ci lettre bi lettre bi mu ngi bàyyeekoo ci omar ibn xataab xalifa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yow niil bu dee ndox mi yaa ko moom sa ndox la yow niil bu la neexee nga génne ko wala doo ko génne yow yaa ko moom ñun soxlawuñ sa ndox bu dee ndox mi ndoxu yàlla la ñu ngi lay porte plainte ci kanamu yàlla boo génnul te kenn du la neexal xale bu jigéen mu ne lettre bu ñëwee dugal leen ko foofu lettre bu ñëwee ñu dugal ko foofu xam ngeen lan mooy mbetteel mooy ndox mi bu mu génnee ci at boobu dafa dem ba egg ci kër yi te daawul egg te joxuñu ko jigéen waaw ñun nag loolu mooy suñu problème ñee dañoo tuub bàyyi ñun dañoo tuub jàpp ba léegi am na ñoo xam ne ñu ngi sangu ci seen i xam bi maam boo waxee ñu ne sunu maam dañ doon sangu ñu ñun dañuy sangu sunuy maam lii la doon def ñun loolu la ñuy def da ngay gis ci Sénégal xale boo xam ne dafa juddu kenn du ko wat nga ñu leen waa liir bi duñ ko wat ñu ne déedéet kañ lañ koy wat mu ne moom bu judd bu waxee wat leen ma rek bis boobu lañ koy wat dañ koy bàyyi ba mu ne wat leen ma ñu doog ko wat sama rakk bu jigéen dafa am doom ñu ngi xaar papaam mu ñëw tudd ko comme Dakar la waroon jógee mu yéex ñu woo ko téléphone ba sonn jotuñu ko heure bi jot nit ñi ñëw nañ ma tudd xale bi ñu wat ko ma tudd ko mu ñëw ñu ne ko tudd nañ de mu ne ana xale bi mu ñëw ñu ne mu ngi nii mu ne ngeen ko wat ñu ne waa rek mu jóg dem gedd daal di jël xar mi yóbbaale ko ñu ne ko lii nag mu ne ñun suñu xeet kenn du leen wat lu dul ñu judd ne wat leen ma ne ko kii de du ci bokk kii bokk ci te xale baa ngi dund ba léegi mu ngi ne am na fukki at ak juróom mu ngi ne def CM CM1 kon yooyu ay caaxaan la yoo xam ne dafa sax ci Sénégal ay reen te feek ñoo ngi ci dund ay jullit parce que mënoo nekk jullit gëm aada mënul nekk mënoo nekk jullit gëm ay xar baax gëm ay gëm gëm am gëm mënul nekk da ngay gëm yàlla wala nga wet bàyyi yàlla imma shakiran wa imma kafura da ngeen di sant yàlla gëm nekk ay julit wala ngeen weddi yaa ayuha allazina amanu udxulu fi silmi kafa yéen ñi gëm yàlla dugg leen ci diine gi lépp waaw foog nga dugg ci lépp waaye ay nangam ak nangam ak sàmba ak demba loolu amul ci diine qaala almadaini borom xam-xam la bu tudd noonu mu ne saaltu ruba ibnu alaaj qultu ma saanihu qaala ma wallaaka mayaaminuhu qultu fama albaarixu qaala wa ma wallaaka mayaasiruhu sànq doon nañ jàng benn baat muy asaanixu ak albaarixu ndey jooru ak càmmoñu sëriñ bi nee na man dama ko laaj ki ma doon jàngal ma ne ko loolu lu mu lan la mu ne mooy li nga moom mu nekk sa loxo ndey joor wala li nga moom mu nekk sa loxo càmmoñ wala li la jege sa loxo càmmoñ wala sa loxo ndey joor léeg-léeg am ku ñëw dend ak yow mbir dikkal la amul ni mu war a amee nga gaafal ki nga dendaloon wala diw mi nga àndaloon xamoon naa ko kii ak njoolaayam bi wala kii ak pataayam bi wala kii ak boppam bu ngand bi wala kii ak mbubb mu nàngam bi xamoon naa ne moo tax lii loolu islaam daf koy tere loolu mooy gaaflu lislaam daf ko weddi ab jullit du gaaflu mu ne wallazi yaji'u min amaamika li nga xam ne dafay dikk sa kanam فهو الناكح والنطيح wallazi yaji'u min xalfika fa huwa alqaidu wal aqid mu ne léeg-léeg ci ñiy gaaflu ñu ne mbir mi bu la dikkee sa ndeyjoor baax na bu la dikkee sa càmmoñ baaxul wala bu la dikkee sa càmmoñ baax na wala bu la dikkee ndeyjoor baaxul loolu ab jullit du ko def ab jullit moom day gëm yàlla lépp lu muy def lépp lu muy dugg mu tànnulu julli ñaari rakka daal di tànnulu yàlla mbir mi maa ngi koy def su baaxee ci man baax ci sama addine baax ci sama àllaaxira mooy sama diine yow yàlla yàlla nag ma ko yombalal may ma ko bu fekkee baaxul ci man dafa nar a yàq sama adduna yàq sama àllaaxira yow yàlla yàlla nag ma ko soril nga may ma lu ko gën ñaan boobu ngay def benn yoon ñaari yoon ñetti yoon nga doog a dem def li ngay def bu dee loo doon jënd la nga dem jëndi bu dee ci soxna soo doon dugg wala liggéey wala wala wala wala nga doog a dem beneen bi am na benn erreur bu garaaw bu nekk foofu léeg-léeg nga gis kenn daan lay woo téléphone ne la oustaz wala imam def naa listixaar bi de waaye gisuma dara kenn waxu la da ngay gis de amul ci listixaar bi li ngeen di gis amu ci yéen bi dafa ne boo defee ñaan bi nga dem li nga doon ut mu yomb amoo ci jafe-jafe xamal ne baax na nga dem mu dëgër bàyyil baaxul ci yow bul insister boo demee rek mu dëgër këj am ay jafe-jafe bul ci dugg bàyyil boo ci duggee di nga ko réccu soo demee mu yomb nag yàlla tànnal na la demal ñaa listixaar bi lan moo ci nekk mooy ñaari bénéfice la boo amee bénéfice la boo ñàkkee bénéfice la d'accord nga nu mu nekkee
su boo amee boo amee am nga bénéfice am nga am nga am nga bénéfice am nga boo amul tamit boo ñàkkee iba iba
mucc nga ci musiba bi kon ñaari bénéfice la ñaari bénéfice la ci jullit waaye di gaaf lu commencé ba maa ndéeg diw laag ba ci diw waxee laag ah heure ba ñu dema baaxu laag yooyu ab jullit du ko def bis yi amu ci bis buy loraate comme léegi li ngeen di dégg fii àllarba nangam kenn du sangu wala àllarba sàngam kenn du fóot wala àllarba sàngam kenn du tukki wala du ngeen dégg loolu ñu naan àllarbay kare tey kenn du sangu kenn du ci tukki kenn du fóot mais doo dégg mu ngi ne kenn du lekk hmm? waaw booy julli ne tabat yi kenn du ko jàng guddi boo ko jàngee guddi baaxul Sénégal ñoo bëri caaxaan te lii nag dafay sax ay reenam dafay sax fi mu nekk nii wallahi ku doon bàyyi ba ñuy julli ngeen nga jàng tabat yi am na ñoo xam ne ci seen sàppe yi bu dootuñu jullee ci jàkka jooju wala bu dañuy génne sàppe yi dem ñu bi ndax dañoo jàpp ne tabat yaraa kenn du ko jàng guddi loolu fan lañ ko teg tabat yaraa di alquran nekk saar bu yàlla wàcce mu bokk ci 114 saar yi ñu ne kenn du ko jàng guddi loolu ab jullit du ko def kenn du sangu bisu sàngam borom xam-xam yi dañu ne imal ma chita fi kulli yawmin fa inna al ayaamu kulluha lillah la tadur wala tanfa ñu ne defal lépp lu la neex ci bis yi lu la neex defal bis bu la neex defal ci lu la neex bis yépp ci yàlla lañ bàyyee ko benn bis du jëriñ benn bis du lor amul bis buy jëriñaate amul bis buy lore te bu fekkente ne da ngaa yaakaar ne bis bii lu bon a ngi ci bis yépp am nañ lu bon tàmbalee samedi ba ajjuma bis yépp lu bon am na ci xam ngeen bis yëpp nan la ci lu bon amee xam ngeen ah xam ngeen nan la déedéet jàng ngeen su- kii suratul xaq tamaat tamaat ah pusale salaamaaleykum pusal nañu famma samut fammaat mu nga fammaat fa uhliku bi riihin sarsarin aatiya saxaraha alayhim saba layaalin wa samaaniyata ayam yàlla nee na waa aat dama leen a mbugal mbugal moo xam ne mbugal ma ba ma ko indee juróom-ñaari guddi la ak juróom-ñetti fan génne leen ci génne leen ci benn bis juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti bis sabaa layaalin wa samaniyata ba pare yàlla lu mu ci teg mu ne xusuuma ay bis yu bon a ngoog xam nga lu tax bis yee bon mooy bisu mbugal la yàlla leen mbugal juróom-ñetti fan yàlla di leen mbugal ngelaw li di yëkkati rek di déjjati di dóor ci suuf ñëpp di dee lu lu ngelaw li egsi rek rey ko ah kon léegi ban bis moo ba ma baax bis yëpp la kon bis yi du ñoom du bis yi parce que bis yi mënuñu dara dafa am kuy amal xew-xew yi xabaar yi ci bu fekkoon ne bis dina bon kay ñu ne kon bis altine moo gën a bon ci bis yi d'accord nga bu doon bis yi da am na bis bu gën a bon ñu ne kon altine la lu tax ci la yonent bi génn àdduna ah wala wala bu doon bis yi am na bis bu ci gën a baax ba tey ñu ne kon bisu altine la lu tax ci la yonent bi juddu yonent bi danaan woor lëndi saxaaba yi ne ko waaye yonent lu tax ngay woor lëndi mu ne ci laa juddu mais ci la dee bisu lëndi boobu mu juddu ci la faatu kon nag xanaa du ngeen ma ne bis bu yonent bi génn àdduna bis bu neex la ah ah xayru yawmin talaat fii samsu yawmul juma mu ngoog loolu xadis la yonent moo ko wax ñu ne ne bis bi gën a baax ci bis yi mooy bisu ajjuma te yow waxee na ci bisu boobu te yowmal xiyaam bisu ajjuma lay nekk ci la yàlla bind aadama ci la ko dugal aljanna te terewul yàlla ba muy mbugal waa aat bisu ajjuma bokk na ci kon mbir yi du bis yi mbir yi du waxtu yi mbir yi lan la nga jaamu yàlla nga jéem a normal ba loo bëgg boo ko ñaanee yàlla mu may la waaye di gaaf gaaflu ah du ma génn heure bi ak heure bi laay dem ak booy dem bu la ñoom diw gis ak solo lu ñuul ak jaaral neeg da ngay gis même tukki tukki booy tukki ñu ne bul nuyoo loxo loxo ndeyjoor nga gis waa ji càmmoñ lay joxe càmmoñ naan nii waaw waaw même takk sëy da ngay gis ñu ne ay am na heure yoo xam ne kenn du ci takk sëy saabaan weeru barax la weer wi nekk ñu ne kenn du ci takk sëy weer wi kenn du ci takk sëy fi mu nekk nii boo nee ni ñu ne noo ba koor gi jeex yooyu yëpp du diine ay aada la ak ay bidaa amul fenn fu ko yàlla wax ak yonent te képp ku ko gëm bu yeboo nga xam ne pas-pasu lislaam dañ na ci yow ba set parce que mënoo gëm yàlla gëm bidaa gëm aada mënul nekk da ngay bàyyi benn wala nga jàpp benn fii nag wax naa leen ko nee naa leen ne fii bidaa ak shirk ak aada dafay fekk baax benn naar lañ am de naar bi une semaine la fi am ñëw fii daawaati jéeg xaw ma di ut biye màkk jëm pour jëm màkk parce que Mauritanie visa yi dafa jeex naar bi day yendu àll ba ngoon mu ñëw ci dal bi sangu julli ay julleem reer benn bis ñu ne ko fii dafa tàng nañ génn ci biti mu sangu def julleem julli gee ba pare ñu génn lalal ko ci biti mu toog ñu ne ko waaw léegi ñaata fan nga def Sénégal mu ne def naa fi juróom-ñaari fan ñu ne ko noo gisee Sénégal mu ne baladu shirki wa tabarruj juróom-ñaari fan la fi am noo ginee Sénégal mu ne dëkku bokkaale ak tambaambalu def yaramu neen jigéen ñi mu ne yéen seen dëkk bi yërëm naa leen gisuma fi jigéen bu sol yére jigéen ñëpp yaramu neen la ñuy def ba pare seen dëkk bi yëpp bokkaale la juróom-ñaari fan kon ñun ñu fi dëkk nag ah pourtant ñun ñu ngi koy gis de te ñu ngi koy dund suñu biir kër yi ñu ngi koy dund ci mbedd yi ñu ngi koy dund ci biir oto yi ñu ngi koy dund ci xew-xew yi ñu ngi koy dund di ko dégg ci rajo di ko gis ci télé jaxaran nga gis ku bokkaale bokkaale boo xam ne daaneel na asamaan waaw te kenn du yaramam du daw te xam nañ ne bokkaale moo gën a bon ci bàkkaar yi yàlla bii am daañ nañ yonent bi saa sallam ayu zanbin azam lan la wax an tajala lillahi niddan wa huwa xalaqak yàlla nee na bàkka bokkaale du ma ko baale yaa ngeen aaya bi inna allaha laa yaxfiru an yushraka bihi waaye wa yaxfiru ma duna zalika yàlla nee na bokkaale du ma ko baale kon nanu góorgóorlu suñ kemtalaay kattan ay gaafloog ay bidaak ay yu demee noonu ñu jéem koo dindi ci sunu dund waaye sunu dund njaboot ak képp koo xam ne jege nañu nangu noo déglu képp ku la jege nangu koo déglu nangu laa déglu soo ko gisee muy dugg ci yooyu booy ba nga tere ko beneen bi mooy amul négocier dem benn waaye daf ma woy dëkk bu sori di ma wax ay mbir ma ne ko sëñ bi dafa am yoo xam ne kenn du ko négocier nag dañ ciy dañ wala nga ànd ak waa dëkk bi waaw islam pas-pas kenn du ko négocier ñun li ñu li ñu li ñu gaañ mooy gis loo xam ne jaaduwut ay nit di ko def waxoo ba pare ñu ñëw bugg la ko def loo ngay ngay ngay nga naan waaw parce que ñi samay mbokk lañ su ma leen bàyyee dañuy wax nangam ak nangam wala waa dëkk bi la comme waa dëkk bee koy def te man ci dëkk bi laa dëkk kon foog ma bokk ci
saa su ma mel ni comme Casamance seen aadama bu ñu fa.
waaw gis naa ko semaine bi am na benn lël.
lël déedéet loolu koy bul sori am na benn mbokk mu ngi ñëw fii ci das dafa jóge Casamance ñëw Dakar lël bii di ñëw xam nga ñëwagul borom kër gi ne ko est-ce que da ngay dem lël ba mu ne ko déedéet du ma dem lël ba mu ne ko ñun buñ demee buñ ñëwaatee mënuñu dëkk ak ku demul lël loolu mooy lan
doo doo doo doo takk soxna sax.
dégg nga lu mu ko liñ ko wax ñun buñ demee lël ba ba ñëwaat duñu dëkk ak ku nekk ku demul lël ku ci bokk te demoo duñu dëkk ak yow kon nag na nga préparé ñi bu ñuy dem buñ ñëwaatee buñ la fekkaat mu ñëw wax ma ko ma ne ko arab baa ngi ni yàmbalang fu ñu tëdd rek ak loo lekk kay yomb na yàlla dañ naa waxoon ne même boo dem. ñun daaw a jéem dañ ko def ñun ñoo ayoon si ma dëkk.
seen waa dëkk ñoo yeewoon daal jeeg daaw a jéem mais dañ dañ wax ne même bu mu ñëwul par la force di nga ñëw foofu.
Loolu mooy lan, man lël.
man daw ko. damaa ngi Lël.
maa ngi dund ba léegi.
mën ngaa nekk mën ngaa nekk jullit di dugg lël mënu lekk xam nga nit ñi ba léegi dañu yaakaar ne mën ngaa nekk jullit nekk ci say aaday maam ba dan samaam yàlla yónniwu ko samaam amul woon diini yonent bi la yàlla yónni da ngay simmeeku ba set li nga nekkoon nga ñëw jël diine lislaam waaye dëgg-dëgg jël benn tànk dugal ci diine yonent bi jël benn tànk dugal ci say aadamaam ah di sangu di xàmb ba pare di allahu akbar di julli munu nekk benn benn mbokk dafa gis benn paa bu takk ngandu bi jing ñoo ne allahu akbar jàkk julli ba pare góor gi ne ko toogal mu toog mu ne ko bi ngay julli ban saar nga doon jàng mu ne ko fatiha jàng naa fatiha mu ne ko bi nga jàngee fatiha loo wax mu ne alhamdulillahi rabbil alamin mu ne lu ci tegu mu ne arrahman arrahim malik yawmiddin mu ne lu ci tegu mu ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu ne ko sa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bi wérul mu ne waaw lu tax mu ne nooy waxee yàlla iyyaka na'budu yow rek laay jaamu nga takk béjjën bi boo ne iyyaka na'budu lu muy tekki yow rek laay jaamu wa iyyaka nasta'in yow rek laay sàkku ndimbal mu ne béjjën bi loo koy doyee doy de kii ñi takk ay béjjën lu ñu koy doyee dañuy sàkku ci biir béjjën bi ndimbal léegi nag nga ne yow yàlla yow ma ne yow yaa yow laay sàkku ndimbal béjjën bi mu ngi sa ndigg li ana li nga wax yàlla dëgg la kon sa iyyaka nasta'inu bi sellul iyyaka na'budu bi wérul te ne nga yàlla yow rek laay jaamu béjjën bi kon lu mu fi wut te loo ci xamul waa bi ne ko béjjén bi rey na juróom ñaari nit parce que réseau bu ngand la ci yor bu ndaw bi la yor ci loxo bi mais bu ngand bi mu ngi ci doon lalam ku mu xulool ci dëkk bi bu la ko joxoñee rek nga am problème mais waa ji dem ñibbi ndeysaan ñu demee tëdd mënul nelaw wax ji di ñëw ci moom naan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bu gëmmee aaya bi ñëw bu xoolee aaya bi ñëw bu luuti ko aaya bi ñëw mu jóg toog aaya yi ñëw mu daal di jël ñaari béjjén yëpp indil ko waa ji ne ko lii daal dëgg-dëgg mënatumaa dëkk ak moom noonu la ci génnee ah da ngay simmeeku da ngay simmeeku ci yooyu wirul da yàq sa diine da yàq sa pas-pas sa yàlla digganteeg yàlla doo set mënul nekk gis nga ñooñ dem bo di lël ya bu ñëwaatee dañuy takk ay lam yu ñuul naka ngay takkee lam bu ñuul bëgg a ñaan yàlla boo takkee sobe sa doom bu takkoon sobe tey kenn ci ñun bu julli woon fii gee ba pare génn bëgg a dem këram mu ñëw fekk doomam jóge ci pot sàmbur mu ngi takk fekk yaa ngi sol yére yu weex tal sa doom bi song la nooy def da ngay daw ba pare waayaam ne ko téye ko téye ko parce que xam nga ne yow bu lay laal rek nga yàqu te bëggoo mu yàq séeréer wala lan moo tax sa yaa pourtant yaa ko jur lu tax bëggoo sa doom bi laal la parce que dafa takk sobe naka sa loxo bi di amee lam ba pare nga nga julli ba pare ne nii yàlla allahumma fekk loxo bi mu ngeeg lam yaa ngeeg sobe nga bëgg ñaan yàlla yaa ngeeg sobe sa loxo bi loxo ndeyjoor mu ngeeg sobe wala loxo càmmoñ lii nga ci takk yàlla daf la ko tere sobe la nga bëgg ñaan yàlla nga ne yàlla na la may kon suñu bëggee am diine yi ñuy jàng ci kitaabu tawxid li tax gis ngeen kitaabu tawxid kenn du ko jàng ci Sénégal wër leen rajo yi wër leen télé yi te mu conférence koor gaa ngi ñëw jël leen seen big noté leen doo gis fenn ñuy conférence ci téere bi wala ñu koy jàngale ci télé yi wala rajo yi lu tax parce que dañ naan da ngay am problème ak waa dëkk bi soo defee conférence nit ñi dañuy dem duñ la déglu boo ko jàngalee kenn du la déglu bu yeboo bu déglul seen affaire la waaye bu soobee yàlla ku ko dégluwul ku ko gëmul doo am diine lii la yonent bi jàngaloon saxaaba yi ñu bàyyi la ñu nekke woon topp li yonent bi indi aaya alquran yi moom la yonent bi jàngale woon saxaaba yi dégg ko xam ne mënu nekk nekk ay jullit lu ñu bàyyi loolu ibnu masud gis na jabaram takk wëñ gu weex wëñ gu xonq wëñ gu ñuul daf ko dugal rek dafa dugal baaraamam rek wax ko dindi ko dafa dugal baaraamam rek xëcc ni ko ibnu masud ak waa këram doylu nañ lii lii boo ko takkee boo deewaaleeg moom doo texe ñaata sénégalais ngeen gis ñu koy takk wëñ bu weex wëñ bu xonq wëñ bu ñuul lam bu am përëm am xaalis am lu ñuul wala lam bu ñuul kukk wala petaaw ñaata jullit ngeen gis ci ko takk ñaata ñaata waaw te loolu du diine te diine da ko tere kon nag dañ delloo suñu xel suñuy njaboot ak képp koo xam ne nangu nanoo déglu nan wax ak moom lii yonent bi faje woon gaa yu njëkk ya lii moo fajoon gaa yi de waaw ñu takku ba fees yonent bi ne leen tekki leen ñu tekki xaay ibnul walid keroog bu muy tub ci kanam yonent bi yonent na ko ne tekkil muy tekki di tekki di tekki ba yëpp set mu jël jaas yi joxe yonent bi ne ko déedéet jaas yi bokk ci jaas yi moom ni mu ñawee woon ci kaw jullit ñi na ñawee ñoon ci kaw yéeféer yi amma lii nag moom bokkul ci lislaam noonu lan to la leen yonent bi toppee ba ci jabar yi da ngay tuub mu ne la ñaata jabar nga am nga ne ko fukk ak juróom-ñeent mu ne la fasal ba mu des ñeent dama nga xool ñeent ñi ko ci gën a bëgg mu des ñeneen ñëpp duñ say jabar ah ñun nag ñun nag ñun nag ba léegi da ngay gis koo xam ne njaga njaay jabar la yor njaga njaay ba léegi nii yéen a ngi koy gis Sénégal kilifa yoo xam ne. li ñu yor ci jabar kenn xamul nu mu toll ëppal na ñeent bu yàgg bu yàgg ana ana islam ana diine ana sharia te yonent bi faseloo ay nit jabar nga tuub mu ne la ñaata jabar nga am nga ne ko nangam mu ne la fasel am des ñeent bokk jullit yi wa lamma kaana tatayuru min ashirki almunafi li kamali tawxid alwaajib li kawniha min ilqaai shaytaan wa taxwifihi wa waswasatihi mu ne ba ñu xamee ne gaaflu ci bokkaale la bokk te bokkaale day tax nit du am tawxiid nit du wéetal yàlla loolu moo tax sharia ne nañ ko bàyyi waaw waaw gaaflu ci bokkaale la bokk ndax yàlla mooy maye yàlla mooy xañe an nafu wa darru min arrahmani njëriñ ak lor ci yàlla lay bàyyeekoo kenn mënu laa jëriñ kenn mënu laa lor tey nag boo gëmee ne nit moo ma lor wala nit moo ma naf nangam fu nit ñi jëm amatoo tawxiid diw laa demoon këram foofu laa reeree ba ma reeree ba léegi maa ngi yuqóol wala sama biir baa ngi métti ah ñaata ñaata ñaata yaay ñoo koy wax seen doom foo lekkee démb ñëw rek sama biir bi day métti sama biir ma foo foo lekkee démb mu ne lekk naa kër ñoom diw ñu ne la ñooñu xanaa xamoon dañ leen a tam wala ñooñu dañ leen di tuumaal wala ñooñu nangam ñaata ñaata fi ci Sénégal la loolu am kon loolu day yàq pas-pas day yàq tawxiidu nit day tax yow doo kennal yàlla day tax yàlla dootul def dara nit ñi ñooy def moo tax lislaam ne nañ ko bàyyi te loolu dafa bokk ci min ilqaai seytaan seytaane moo koy jax-jaxal sa xol naan la diw la moo la xooloon waaw diw nga àndaloon ndeysaan te sa yaram day daw yenn saa yi nga gis koo xam da nga ko naw mu laaj la laaj boo xam ne fa ngay jóge jéppi ko ba yowmal xiyaamati waaw ci laaj yi mel nii waaw te da lay laaj ba pare di ci dëgër de du ko bàyyi waaw yéen da ngeen di wax nangam ak nangam ngeen ne waaw loolu de lii la ci diine wax ñu ne ah waaw yéen nag gis nga ko gëmul xarfa fuufa xarfa fuufa ne la fuuf wala lay wax ku gëmul xarfa fuufa xarfa fuufa ne la fuuf xarfa fuufa lan lay jëriñ ci diine lan la mën ana yàlla ana ban yonent moo takkoon ay xarfa fuufa est-ce que Ibrahima bi ñu koy sànni ci safara si dafa takkoon ay xarfa fuufa Yusuf bi ñu koy sànni ci teen bi dafa takkoon ay xarfa fuufa Adama bi ñu ko yàlla di génne biir aljana di ko wàcc si kaw suuf dafa takkoon ay xarfa fuufa yonent yàlla Muhammad keroog bu muy dem Badr di xeex ak waa Quraysh ñee nekk junni moom mu yor ñetti téeméeri ak fukk ak ñett te seeni ngànnaay matul waruwaay yi matul dafa leen takkaloon ay xarfa fuufa dañ leen dellu ci sunu diine defaraat sunuy pas-pas wéral sunu tawxiid sunu digganteeg sunu borom sunu xol yi buñ ci dugal ku dul yàlla mbokk yi yéen sax wax ngeen ko ngeen ne lu dul yàlla neen la lu dul yàlla rek xale yi dañ koy wax naan pinton la pinton lekk rek lu dul yàlla lekk rek waaw lekk rek yaa faroon nen bi keroog omelette ko ay nàkk nga def ci soow lekk allah walla rek def nàkk def nàkk jël dugub yàlla bi def ci suukar def ko nàkk pare leen nga sarax ko julli ni nga dem teg ko ci mbedd mi yow om leen nga nen yi de ñaata nen la woon waaw oustaz Diouf de temps yi om leen na ñetti nen yow am leen nga benn nen mu ngi nii yéen a ngi nii toog yaa gis ku jënd nen ci dem jënd tabletu nen ñëw ci mbedd mi saam ko ci Carrefour sëlebe yoon jéggi ko dem wallaay bu ko fa waaye yàlla fekkee dina ndékki keroog ndékki bu neex nen bi lu mënal diwlin bu tàng bi nen diwlin boo ko dugalee ci diwlin tàng bi bu ci jinne nekkoon sax dana daw ndax jinne du fa toog di lakk yokkal gaz bi rek ba diwlin bi tàng nga toj nen bi tëmbal ko ci nga xool ndax li ci nekkoon du génn luñ gëm yàlla.
ba nga ne bismillah for ko ci la.
ba nga ne bismillah la dem yoonam. ndeysaan bismillah moo mun lépp mais ñun dañu gëmul yàlla. billaahi wallaahi day gis xol sarax yu mel noonu doo ko saraxee nga am tiyaaba li nga bëgg yàlla may la ko sarax ko julit nga ne tableau nen boo ko jëlee nga dajeeg benn paa bu jógee jàkka fajar nga ne ko am dina am leen ba sonn bis boobu. bu ma waa këram ñu ñaanal la mais nga leen di ko sànni ci mbedd nga gis ñi amul imaan ñi amul imaan ku jib day daw ha gis ngeen liñ teg fii xulli ay bëtam foo ko gëm yàlla fekkee wallaay keroog dina nekk ba suuf noonu la ñuy def ay guróog ay sondel ak du kenn xamul benn waaye ci période tabaski mu amul xaalis kolobaan mu jékki-jékki rek ci carrefour kolobaan bi mu ñëw fekk fa 60 000 ñu teg ko nii 10 000 bu nekk am luñ ci teg benn xaatim 10 000 bu nekk teg nañ ci xaatim 60 000 ñëpp taxaw di wax fees dell ki nit kenn ñemewul laal xaalis bi moom daa ñëw rek ramasser xaatim yëpp teg fële rek jël soixante mille yi départ utali daral dem jënd xaram yeewu tabaski ca suba sa mu xëy dem kolobaan ñëpp di ko xool ñim doon nekkaat ba léegi mu ngi mu ngi ci jàmm dara dara lan leen gëm yàlla defar suñuy pas-pas xam ne mbir yi yàlla la du kenn du kenn yàlla rek amul kenn suñu gëmee loolu mucc yeneen yi nag seytaane moo koy def waaw da ngay dégg yenn saa sax benn waay mu ne man de xale bu ndaw sax bu rëddee ne ma bul jéggi du ma jéggi xale bu ndaw bu rëddee ne ma bul jéggi du ma jéggi wala kenn du jaar ci diggante ñaari por lamp wala kenn du jaar ci diggante por lamp ak miir bi yu xam ne caaxaan yoo xam ne tere na nit ñi nekk ay jullit sëñ bi ñan leen yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ñan leen yàlla woon neen mu wërsëgal ñu soriku li moon muqaddima la ci buntu atatayur lii la boroom xam-xam bi ubbee téere bi insha allah talaata bii di ñëw ñu daal di dugg ci dars yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu wa aleykum salaam bismillah
maanaam boo xamante ne